koy non non mooy li ma wax rek mooy yenn pour man xam nga yëfu lan la yëfu góor jigéen la parce que góor jigéen mooy xasante góor ba dem ba di xasante yaa ngi si lóob yu góor jigéen tu ñu bëri nag dañ si net bi pour diggante ay bës pour am tur parce que amuñu fu ñu jàpp pour am tur ñii dañu ñëw def taatu neen gis fi ay jamono ay ñaar xarak loo émi sanap awraam bi ñii sanap seen cokk yi ñu samp seen bun yi ça ku nekk ñu demee euh, rang ñëw def soirée taas leen entre deux cent génn ay weenam ak ay di caga cagalu parce que moom noonu lay amee bës keneen ak keneen mais fu dem yeneen gars ay interview di xasane seen biir mais nag état ngir yàlla mais euh, internet c'est pour les baptu et les mais ñun fii am nañu réalité am na réalité bi xam mooy lan moo ñu am nañu loi mooy suñu loi yi suñu état yeeg suñu police bi nan dem recteur ñu teg leen si yoon ko parce que parce que ay nit lay déglu ay ponkat dañuy déglu ay xale dañu lay am na ñoo am sax gar na saaga man damay def noonu am na ñoo xam ne bu ma saaga dañu jar ma saaga leen parce que ay door am nañu comme genre góor jigéen ñuy dégg nii te bi nii ñu ngi si lobby bu garaaw ñu ngi naan ay faram ay góor jigéen légalisé naan loolu légalisé ñun dañu war a sonn sax si kii wax na lee ñun nañ am suñu constitution bopp wote ko assemblée mais diine bi nañ ko dugal assemblée ñu ñu boole ko si constitution bi may ñaan tous les sénégalais may ñaan ñu nekk assemblée fekkee ñoom gëm nañu yàlla fekkee bëgg nañu yàlla ñoom. loi bi nekk assemblée nañ fa dugal charia com comme le cas de kii peine de mort ku rey nit ñu rey la da siy baax. ku sàkke ñu daggan lay sa loxo da siy baax maa dëgg sa baaraam. jërëjëf ñu jeexale ci euh, kaw Mame Makhtar Gueye vice président ONG Jamra gis nga jafe-jafe yi mu toll bi tolof tolof bëri na problème ndax coom leeg euh, doomam loo ci am waaw waaw moom la rek waaw loolu moom problème moom doom la quoi waaw am na yoo xam ne man du ma si sax jéem a dugg ni quoi loolu problème la moom ak doomam mais sénégalais xam nañu quoi maam Maxtaar moom maa ngi koy maa ngi koy dama koy dama koy ñaaxaare quoi parce que man man du ma dingate benn tarixa diine du ma dingate benn jullitu yàlla du ma dingate benn wëlu yàlla mais wëlu yàlla wala sëriñ fu doxee ne def leen moo ko maa ngi dégg si moom ay affaire ñu ko koy jiiñ mais na setal deram xam ne ñun ñun ñun ay ambassadeur lañu te ñu seen gannaaw tu vois te ñu leen di xaar ñoom ñu wane bon exemple ci société bi tu vois xam nga lépp lu koy waral sa doom nii parce que yow yaay dugg si benn combat boo xam ne di nekk ak ñoo xam ne nit ñoom dañ lay pété suba ko potexe la mën na jaare sa doom mën na jaare si yow jullit di nanu yeewu Jamra bi ñu koy dégg yaa ne ONG Jamra bi ñu leen xam yàgg na mais ñun ñoom nan làkk si le terrain bi gën a def seen société seen liggéey si affaire de góor jigéen yi man faral leen di xaar ONG Jamra muy Mame Makhtar seen imam yi nañ wàcce sur le terrain ñu xool nan nañu contacté yi artistes yi fekkee dëgg la ñu def xoola ñu xool nan nañ fi sensibiliser góor jigéen temps yi passé yàggul fii Medina fii su ma juna xam nga lu fa amoon ndëpp góor jigéen ñi billaahi non waaw lii doo ko comprendre sax ndëpp ay góor jigéen yu ndëpp ñoo ñëw fii su ma juna mais ndekete gars yi ñoom bi ñu remarqué ñi ay góor jigéen lañu ñoom daw nañu ñu baafe benn nag nag bu ñuul nag bi après si à la fin waaw benn oto moo ko jël si donc si pet ñeneen ñoo ko jël si yóbbu ko ay góor ndëpp góor jigéen ba demee si bois yi da nga fekk ay góor jigéen ay boy ay cage ay góor ba sax parce que temps bi xëy na temps bi dëgër na si ñenn ñi wala gëmuñu yàlla fu ndem ba yàlla ni jullit ak beneen xeet jullit bi yaa moom lii jullit lii nga war def pour sa santé ñu ngi si axru zaman nag ñaawteef yu bëri na seetaan yi instant bi nii ñëpp baat ñi topp nafiqe ñoom la ñu gën a di déglu mooy seytaane yi mooy défaillant yi boo nekkee citoyen sénégalais bul tricher yàlla li ma war a jox dina la ko jox mais man de man man man bii mi problème lu ma gis ci senegal waxuma la ay benn koñ man ay koñ ci amuma intérêt mën naa am problème ba mbaaw wala ba tëngéej ma dem fa taxaw bokk ñuy def peut wax li ma wan leen ay preuve man sa mission loolu la ambassadeur laa